أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على من لا نبي بعد سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين mbokki julliti mbokki doomi ndey سين émission ndogul koor دي بارتاجيك ak yéen tey baat bu am solo baat bu tedd baatu dëgg waaw baat buy tegtale wéetal yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nag mooy baat bii mooy laa ilaha illa mooy kalimatul xaq mooy kalimatul ixlaas waaw mooy baatab wéetal yàlla dëgg waaw baatab tawxid dëgg mooy laa ilaha illa waaw boo koy wax nag da koy wax ca nam gën a baaxe waaw bañ a wax rek laa ilaha illa day mukk waaw waxal laa ilaha illa waaw haa kabiir ki na ko génne waaw Bom ag ci dënn ba waw allah ju jigi nang bom ko genné bam ag ci dënn ba day waw boko waxé da nga wara sentir sa ni mi vibré waw la ilaha illa allah waw non lañ koy waxé day moy amul benn bour bu ñuy jaamu ci dëgg jaamu ga di la jural njariñ ñak ga jaamu ga di jural lor illa allah ndara yalla yalla rek a yewa jaamu day ni bijj illa allah ji illa allah waw Euh, baat boobu mooy baatab xaq mooy baatab dëgg waaw moom la yàlla tabaraka wa taala digal mboolem ñépp rek waaw wax na ko sax ci alquran wa ma arsalna min qablika min rasulin yow yonante sallallahu alayhi wa sallam illa nuuxi ilayhi annahu la ilaha illa ana waay waay faabud nii waaw ni ko yow yonante sallallahu alayhi wa sallam yónniwuma la yaa ngi yonante yi leen jiitu yépp yónniwuma leen lu mooy rek eh, wax yu naa ci yéen Euh, ni moom yàlla moo amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg jaamu nga di la jural njariñ ñàkk gaa jaamu nga di la jural lor illallahu yónniwuma leen lu dul wax yu naa leen rek yéen yonante yi laa ilaha illallah waaw ni ko kon nag jaamu leen ma de waaw wax na ko feneen ak feneen ak feneen seede na sax ni moom yàlla ni xamal yow yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ni amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla waaw faalam annahu laa ilaha illa illahu waaw moom yàlla tabaraka wa taala dellu wax ni yunazzilu almalaikata birruuxi min amrih waaw ala man yashaau min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana waay waay fattaquuni waaw loolu la yàlla wax tabaraka wa taala wàcciwul malaayika yi jox leen wax yu ak i ndigal e, ci ñi ko soob ci ay jaamam te mooy yonente yi alayhimu salaam lu mooy wa wax nañ leen ni leen bégale leen waaw avertissez ngeen wax nit ñi ni leen amul benn buur bu ñuy jaamu day kurul yàlla day ragal leen ko moom yàlla tabaaraka wa taala moom rek moo yeyoo jaamu waaw seetal loolu su ko defee mooy baat bi nga xam ni mooy baat bi gën ci baat yi amut nenn nu ñuy jaamoo yàlla day noo xam ni gën na wala benn baat booy wax boo xam ni gën na nga wax la ilaha illallah day baat gënut ko sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax moo ni xayra ma qultu ana wa nabiyuna min qablu laa ilaha illallah nee na lu gën ci lu ma mas wax man yonent sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi ma jiitu mooy laa ilaha illallah waaw mooy gën ji nu ñuy zikare mooy gën ji nu ñuy tuddee yàlla moom laa ilaha illallah li ci nekk ci njariñ nag kenn mënut laa wax nam toll waaw ci li ci nekk ci yiw yonent sallallahu alayhi wa sallam wax nu ko wala yàlla sax tabaraka wa taala wax nu ko kenn mënut laa wax nam toll Abu Zar dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko waaye waaye yow yonent jàngal ma Euh, loo xam ni bu ma ko defee dina ma jegeel aljanna waaye mu soril ma safara yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ko euh, boo defee lu benn lu bon rek day waaw wala nga def benn bàkkaar rek day gaawal tofal ca lu baax waaw ndax lu baax lañ cay tofal dañ koy ful ba muy fukki yoon waaw euh, man jaa bil xasanati fa lahu ashru amsaliha yàlla sax wax na ko tabaraka wa taala ku dikkee benn yiw yàlla ful ko bu muy fukk mu doon misaalu fukk waaw seetal loolu su ko defee it Eh, innal xasanaat yuzhibna sayyi'aat yu baax yi ngay def mooy farsa yu ñaaw ñaaw yi ngay def waaw kon boo ca tofalee lu baax rek mu farsa bàkkaar yi nga amoon day seetal loolu Abu Zarr continué ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw léegi jàngal ma lu baax lu ma mën a def tofal ca yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waxal laa ilaha illallah waaw ni ko mooy li gën ci noo mën a jaamoo yàlla mooy li gën ci ci rafet waaw mooy li ci loo mën a def ci eh, maanaam jëf ju baax mooy jëf ju baax ji gën mooy laa ilaha illallah seetal loolu su ko defee eh, kon sikk nekkul ci ni laa ilaha illallah amul baat bu ko gën amul baat bu gën a tedde noonu ci yàlla tabaraka wa taala waaw seetal loolu day far ay bakkaar comme ni ma la ko waxee yonent sallallahu alayhi wa sallam na waaw laa illah illallah du bàyyi benn bakkaar lu mooy jéggal nañ la waaw waxal laa ilaha illallah rek ñu jéggal euh, sa bakkaar yi day loolu la wax na ko feneen qulu laa ilaha illallah tuflihu nee na waxal laa ilaha illallah rek nga mucc gi dangay ngay mucc ci bàkkaar yi waaye di nga mucc ci safara la laa ilaha illallah da lay day tax doo dem safara mukk moo tax loo def def def bakkaar ak loo nekk-nekk ci ay bàkkaar bul fàtte mukk di tudd suturu borom bi bul fàtte mukk di fàttaliku yàlla tabaraka wa taala bul fàtte mukk di def ay azkar waaw ak loo nekk ci lu bon nekk ci lu bon ndax mën na laa sauver ëllëg yowmal qiyaama ndax tudd gi nga koy tudd ak gëm gi nga xam ni euh, dugg na ci sa biir xol boo koy tuddit na nga ko tudd tudd boo xam ni da nga koy gëm day waaw la ngay wax day dugg ci sa biir xol day waaw bu duggee ci sa biir xol nga gëm ko rek day àgg direct ci yàlla tabaraka wa taala amul barrière boo xam ne dina séparer laa ilaha illa yonent sallallahu alayhi wasallam moo ko wax dina séparer laa ilaha illa allah ak yàlla tabaraka wa taala boo koy wax rek te muy dëgg ci yow mu àgg ci yàlla tabaraka wa taala moo tax tudd ko nam gën a baaxe day laa ilaha illallah amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg jaamu ko di la jëral njariñ ñàkk gaa jaamu ko la jural lor kudul yàlla waaw na dëggu ci yow rek yàlla jéggal la say bàkkaar de yonente ko wax sallallahu alayhi wa sallam na dëggu ci yow rek nga mucc ci safara waaw donte da ngaa nekk ci bàkkaar seetal loolu لا إله إلا الله موم yeesal ngëm day waaw صلى الله عليه وسلم بيستوك ناك صحابي ak saxaaba yi ni leen yeesal leen seen ngëm saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmahin laaj ko ni ko waaw nu ñuy yeesalee suñu ngëm sallallahu alayhi wa sallam ni leen wax leen laa ilaha illallah day yeesal ngëm day waaw day delluwaat li ak manquement yi nga ko ci sa biir xol ilaha ci yow Euh, mu dugg ba ci sa biir day jàll direct ci yàlla tabaraka wa taala diggante yow mi koy wax ak yàlla benn voile du fi dox waaw moom daal day àgg direct ci yàlla tabaraka wa taala day ndax baat bu mel ni moom amut moom laa ilaha illa allah nañu ko tudd ci turam mu sell bi nañu ko wéetal mooy baatu wéetal yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg mooy laa ilaha illa allah moo tax day àgg direct ci yàlla tabaraka wa taala amul benn baat bu mel ni moom su ko defee moo tax day yeesal ngëm yàlla sa waxoon ko tabaraka wa taala alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum waaye wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imaana sa ngëm dolli waaw sa xomaag xomaagu xol deñ waaw loolu yëpp ngir dooley la ilaha illallah seetal loolu su ko defee ak la ca nekk ci aw yiw ñu di la ko bindal sallallahu alayhi wa sallam nee na ku wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir ñu bindal la wala yuxyi wa yumit wa huwa ala kulli cheyin qadir ñu bindal la million yi yiw waaw faral la million yi bàkkaar waaw yéegal la million yi maqaama seetal loolu moo tax ma ni waaw bu ñu nekk ci ay bàkkaar nekk ci ay bàkkaar ndax noonu la ñu yàlla bindee tabaraka wa taala lu ñu ci nekk nekk yii nga xam ni moo ñu mën a sauvé mooy tudd yàlla yii yii nga xam ni ku ko def li nga ciy jëli ci yu kenn xamul nam toll kon doonte yaa ngi ci biiri bàkkaar waaye gëm nga yàlla waaw na dugg ci sa biir xol day nga wéetal ko moom yàlla tabaraka wa taala lii rek mën naa sauvé comme mën a doon waaw moo tax laa ilaha illa allah moomu ku mujj si sa làmmiñ nga texe waaw kumu mu mujj doa do am njàq njàqare bàmmeel de yonan salallahu alayhi wasallam moko wax setan su ko la ilaha illallah momu doole joju eh, am nako eh, net eh, ay hadis ñew na ci ñu net ni yent yalla no alayhi salam waaw dafa wax doomam ja ni nga wax la ilaha illallah de waw niko wak waxal la ilaha illallah ta nga jottali ko ndax la ilaha illallah momu bu ñu ko won ci balance waw ci benn plateau bi ñu teg ci eh, eh, eh, mboolem juróom-ñaari asamaan yi ak mboolem juróom-ñaari suuf yi day ñu teg leen ci balance waaw teg ko ci benn plateau teg la ilaha illallah ci benn plateau la ilaha illallah dina leen daaneel ci suuf waaw bu ñu leen jokkale woon nit mu mel ni ab chaîne ñoom juróom-ñaari asamaan yi juróom-ñaari suuf yi laa ilaha illallah dana leen bët waaw dana dana dana toj yo yooyu jàll moom la ilaha illallah ndax doole jim am la ilaha illallah moomu soo ko waxee te muy dëgg ci yow de day àgg direct ci yàlla tabaraka wa taala ba arash arashug yàlla gi day jaayu waaw baajewu ngir tudd googu nga tudd wéetal googu nga wéetal yàlla tabaraka wa taala yàlla ni ko waaw wa arash doo dal mu ni ko nu may dalee te jéggaloo sa jàmm bii day waaw noonu la yàlla tabaraka wa taala di jéggalee bàkkaar yi ci képp ku wax laa ilaha illallah seetal jooju doole ak woowu nga xam ni laa ilaha illallah lamb na ko mooy baatab dëgg mooy kalimatul xaq amul benn baat boo xam ni yaa ngi koy wax mu gën a supérieur mu gën a féete kaw laa ilaha illallah kon nag nañu koy baril ndax yàllaa ni udkurullaha dikran kasira waaw tudd leen yàlla tudd leen ma man man yàlla tabaraka wa taala lu bari waaw dikran kasira kon nag foo toll rek waaw bul bul bul fàtte sa borom tabaraka wa taala foo toll rek dee ko tudd day foo toll rek dee wax laa ilaha illallah ndax baat melut ni moom foo toll rek eh, eh, eh, dee ko wax ndax yiw bi ci ne foo toll rek dee ko wax ndax njéggal gi ci ne foo toll rek dee ko wax ndax mm, muccal gim lay musal gim lay musal ci safaraak lépp lu mën a doon kon laa ilaha illallah ngoog ak doole ji mu am nañu koy baril surtout ci weeru koor bi nga xam ni moom it ci biir weeru koor loo def ñu ful ko kon nag def ci li gën ci ni ñuy jaamoo yàlla te mooy nga wax turam tur nga mooy nga wéetal ko amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg jaamu ko dina jural nga ñàkk ga jaamu ko dina jural lor ku dul yàlla laa ilaha illa allah waaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala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 سن لخي چكا على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي